لك دام السلام ربي وتوبا ليكن ربي فيما سعدوني والتفت لي يا ربي برا وبعرا ماكسا في مراكيس عذوني ولتدم لي قناعة بك ربي راسدا مرشدا بشر مذوني ولتزغ لي مراغبي دون كد عابدا خادما بأفضل ديني وبي أنفع الدنيا وأخرى لي منقذا كل سائل ومديني وبي أنفع الدنيا وأخرى لي منغزا كل سائل ومديني ولنبازغ ذوي العلوم بعلمي وذوي الجعل والجول عيني ولنبازغ ذوي تعلم تغنى واعتصم جميعهم من لعوني ولتبازر بي اليتامى la koo xaye kii sëriñ Touba ko tibbal Serigne Touba ko fal Serigne Touba ko teg ca kaw ndax moo ko liggéey liggéey boo xaye bi kere ba mu wàcc ci ci Daaru Salaam ngan ngam ko doon ganale lu bari ca ko xéwal yooyu ca ko wàcc ko bis ni ki tey koo xaye ki taxaw nga ci dëkk bi rek sëriñ Touba xeeti la tey ji ak ba liggéey. rakk la woon ci sëñ bu mag bi sëriñ Touba waaye dafa tegan palaasu rakk ji teg nële daal ko jënd ak taalube waaw moom ci ginnaaw sëñ bi rek la toppan bëgg-bëgg sëñ bi la daan jëfee. ku ne xam na diggante maam Cheikh Anta ak sëñ Touba man taalube laa taalube sëñ Fallou laa bëgguma ko daal at mu jot daal maa ngi ñaan yàlla di ko fekke ndax ay xéewal rek lañ ci jëlee. bi ñu exilé sëñ Touba yóbbu ko Gabon. maam Cheikh Anta moo fa njëkk fekk bon ko yóbboo gànnaar tamit maam Cheikh Anta fa njëkk fekk anzim bi abahum kulla ayni rabbi zidni ilman wa zidni azayan ya kariman ilay daaban anini أبلي الكاس مستقيما منيبا bis bii daf di bis boo xam ne bii moom itamit ci historique murit ci la bokk ndax Cheikh Ahmadou Bamba bi mu tukkee tukki bi daf la muy def ba noppi am la muy am te bi muy dem dëkk bii la la la fi bàyyi woon may ko rakkam boobu ñuy wax maam si Anta may ko dëkk bi ak li fi ne ak li li dëkk bi amoon yëpp li mu soloon yëpp da koo jël may ko ko. ba mu demee ci tukki mu tedd moomu def la muy def am la muy am ci sunu borom ba noppi ba mu ñëwee def na fii lay jaar fii la jaar ba mu ñëwee sëñ bi nga xam ne moom la mooy rakam sës ci moom rek te defal ko léppam moom la ñëw ne ko fii lay jaar si ci yow muy bi mu toll bis bii nga xam ne àddina bi yëpp dañoo ñëwoon fii ci bis bi ngi fekkee ngan ngan gi nga xam ne moom la maam Cheikh doon defal ku tedd ki ci tukki mu sori moomu ba mu ñibbisee bi mu ñëwee maam Cheikh lu lu nekk def na ko fii. bis bi moom nu ko yëgee moom bis bi moom ala daw mi quoi bis bi moom wax dëgg yàlla lépp xewal la waaw maam Cheikh Anta moo waral lii lépp nag moom. waaw borom gaawaan borom daaru gaawaan moo tax moom bisam bi moom gis nga ko fu ne la di bàyyi ko fil kitaabil mubiin aslil funuuni wastajib daawati wa biltu wa suxli fawqa ma umtu bi istikan wa anini ولتزور منك بغير صلاة ñi nga xamante ne bi dañuy sàkk lu baax te yàlla rek tax ñu jóg nañ jëbal ci Daaru Salaam kër Maam Cheikh Anta borom ngërëm ngërëm ndax ko ñaanal taalibe fi teew yëpp ak ñi fi bëgg a teew te teewuñu fi suñ borom may leen fan wu gudd ak wér ñuy chaque année ñuy waajal màggal gi ñu ko mën a waajale ñëw fii ci Daaru Salaam ak Touba. maa ngi lay Ah, ñoo ngi ci jàmm ak salaam rek ñoo ngi soog a nii ñoo ngi soog ñëw ci dëkku maam Cheikh Anta Gaawaan fas bi yéene ñaan xéwal ak wér ak wér la saayir bi barke maam borom Tuuba ba ah eh, eh, rek bi ñu duggee ñoo ngi sant maam Cheikh Anta borom fayal na ko bu baax barke borom ba bisalaamin ila sabi lamini والدعا لي سعادة والتواسعا واكتبني بي من علي الأمين والتعذني من الأذى والبلايا والتيول للعدا وغل المعوني واكفني جملة العدا ولتحسني بك من إبليس وجيم العين ولتزول مواخبي في دوام يا معينا ما زال غير معيني واعدن اليوم يا إلهي واجعل عملي ذاكيا كزاي العيون ومعيني والدولي شمدا كل ذي جود ميوني والتزد أبدل الباء يا صلاة وسلاما وزيد دواما كنوني سني يا الخبز من منائق ومني عن أزاز دنيني ولتكمل عقدي وعلمي وسعي وفهي اليوم كل يا معيني ولتكمل عقدي وعلمي وسعي وفعل يوم كل